social shopping voyage. ma ne ko agence de voyage bu mag bangoog agence de voyage bu accessible bangoog ci agence de voyage bu mag bi. dangaa bëgg a tukki ma ne la jaaxle jeex na ak social shopping voyage waaw dangay tukki dëkk bu la neex vente billet d'avion ñoo ma ci doy yow mi nga xamante ni dangaa bëgg visa fépp fu mu mënti doon ci àddina bi Canada Angleterre États-Unis Nouvelle-Zélande Arabie Saoudite Dubaï France Italie Espagne. Allemagne Belgique ba ci Turquie makkatal mu karama yéen a ngi ci biir yéen ñi bëgg dem umra ba ci yéen étudiant yi bëgg a dem jàngi à l'étranger mën ngeen a ñëw ngeen mëna def seen ay préinscription ci social shopping voyage kon nag mën ngeen woote ci 77 417 77 40 wala ci 33 835 08 67 ci social shopping voyage ñoo woor di nuyu bu baax suñu xalifa Seydi Mouhamadou Mokhtar mu yàgg fi lool ak njabootu di ñaanal suñu maam Serigne Mountakha Mbacké Bachir yàlla téyal ko yéen bi lu yàgg fi lool yàlla defal nu màggal bu barke incha allah Ablaye ñu ngi lay ziar Issa ña nga ngi toog di suñu mag Ablaye Fall ngoo bi di toog ci defe naa ci suba yéen ak moom la woon ba jàmm damay wax ni dëkk bi lu ñu fi def rek defal luñ ko maam Seydi Serigne Ablaye ko defal ndax Serigne muy dëkk bi looloo waral képp ki nga xamante ni yàlla def na ci sa xol ak toxtu cofeel bu jëm ci Serigne Ablaye bu déggee teraange gi ñu def Ablaye bàyyi lépp ñëw ngir Serigne Ablaye kon nag ñu jëfe ndigal ni rek Ousseynou Laye ko moom itam yàlla yàlla barkeel مدق النبي المنتخى سعد الله بيتي إله الناس وهبي له مدق النبي liggéeyal muntaxa saadun ilaa bayti ilaa hinna siwaa حسب النبي للإله سورا ساد إلى المدينة la ana soppay Seydina Muhammad musalliman badat lana noolam Serigne Bamba Muhammadun درجة المختار حب مرسلني بيعطي الله درجات رسله ku ne ana soppay li ma dal muxtaare maalam yëkku wala yakunu abadan li ana soppay Sëriñ Tuubaa billaahi madalana al islaama wal islaam waxsana isaana lal gulaam sëriñ bamba ne yasuru xatiya fi kulli zanaan ciy borom tuuba wa xayru min xigmatin muxtasanan inda allahi jallala xana ko sopp Serigne Touba nekko ci jotaay ku bëgg Serigne Touba jogal ñu magal borom magal gi indallah indallah indallah indallah indallah من الله جلالا حمدي وشكري لمن كل بيزا لا رضا دون سوط عند زرزارا كتب باي سرين فلو مكة لا وزناي ورلوان بلا سلال Rajaleh min batin deman zah Inalazina ilah serta Alhamdulillah ana ku fi gën a bëgg sëriñ Saaliw jotaay bi man maa fi gën a bëgg bu dee am na keneen ku bëgg sëriñ Saaliw ñëwal ni ma man la alhamdulilahi war na ma sant mi dee ti yow sëriñ Saaliw maa koy jotal Serigne Saliou Mbacké yaa yor la ma yoroon Serigne Saliou samp nga ko tey mboolem na Seex Bamba naa ay Serigne Saliou matal na ba dem bur yàlla naan nanu maa rasalaay demas ku dem ba jirim xam ne njëbbal mooy sëriñ Saliw jàmmaari xel kom jëlil na liir borom jàpp nal xabaan borom la ganang dookaan borom daaray ñuul borom daaray umul xuraa daari daari mul daray alimul xabiir sëriñ Saliw jàmmaari xel kom jëlil na liir ana soppay sëriñ Saliw sëriñ Saliw sëriñ Saliw sawaay ñee keneen ah. sëñ Saaliw sawaay du xat ci jëm feneen di gëm leneen sa diina doy na xarnu bi ah. doomi mam bu ku ma wax Sëriñ Bamba na Sëriñ Tuubaa taxaw ci sëy doomi mam bu doomi mam góor ñuy wax Serigne Bamba te dégguma benn góor gu ko wax doomi maam bu saa dara jaal Serigne Touba yaa dara jaal nit ku ñuul ba ngeen di ko naw ndax tubaab yi dan ñu woon xeetu jaam lañ kenn duñu naw tax tubaab yi jàppe ñu ay esclave de kii toroxal sëñ Bada boobu ba tey nit ñu ñuul ñi yaay Sëriñ Tuubaay ki leen teral Ahmadu borom jaam ñi Sëriñ Bamba mujje woote ah, ah, ah, ëppi ndongo gën a gëmle gën a siiwle tubaab ya naan ko sëñ bamba foo bëgg dëkkee ku ma soppal bamba jugal tubaab ya naan ko sëñ bamba foo bëgg dëkkee waaye jug leen màggal sëriñ Tuuba loxo ca kaw indi ka Ndakaaru Bamba jaaxal leen ñu delloo si ko loxo ca kaw a ñu yóbbu ko ci yéen jolof yóbbu ko ci yéen jolof Bamba jaaxal leen ñu delloo loxo ca kaw a yóbbu ko jaareem ñu yóbbu ko jaareem Bamba jaaxal leen ñu téye ko fa téye tax ramul masir ilaa Jurbel la dal la sasin law ay sirama بسير ما رابو رابو رابو رام المسير إلى وإلى ورنما يا دوني خيرنا ana soppey suriw abdoulaye jaw way xayruna ku sopp Baye Abdoulaye Thiaw loxo ca kaw ñu màggal jàmbaar ji Baye Abdoulaye way la wa social shopping technology SST. nga di ci que nous travaillons dans les différentes filières vente et installation de caméras de surveillance vente et installation d'équipements de sécurité de maison maintenance et gestion de parcs informatiques câblage réseau informatique vente de PC téléphone portable accessoires création de site web développement d'applications mobiles, mani social shopping technologie ci lepp lañu yëngu ci technologie nga ak 77 417 77 40 wala ci 33 835 08 67 SS Tech ñoy numéro 1 ci Walum technologie